السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوي نيو لي نوي بوك جيل ييب رب التالب ييب رابط ناي اي جي كسي الله يون جوت ديغال لو خاني مي بايكو سي سيدي مباكي ابن صاحب الله مباكي دي خليفه سي عبد الله بسم الله مون جوخل ديغال نك ني ورا ييغال بوك طالب ييب اي جي كسي الله بيب خريط بو خاني يتي وونا كسي الله بوك ولر بو خاني يتي وونا كسي الله ak bépp soppe boo ko sëñ Abdoulaye ñu leen war jot ndigal lu bàyyi ko ci moom ndigal li nag mooy ndigal li nga xam ne sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Tuubaa di xalifa général bi mooy moo joxe ndigal wax ko ci làmmiñ ñëpp dégg ko liggéey bu mu war a yeesal bu mu war a yeesalal jumaay sëñ Tuubaa ak li war jumaa loolu nag moo tax mu joxe ndigal mu war a jékki ci kàddu woote ci ndigalam lépp lu waay man sa kattan loo mën a def nga def ko ngir ndigal loolu mu joxe ndigal it ne lu ci waay di joxe lu ne nanu ko jox nu téye ko bañ bañ war koo jot jot ni ba loolu jàllee nag ñun si wàllu bopp nag ñu leen ñu leen soññi waat di soññi sama bopp man nii di soññi ne képp koo bokkal Sëñ Abdou Lahad tàmbalee ko suñu seexu naa mi nga xam moo mooy jëw nii kër Sëñ Abdou Lahad ñoo ngi koy soññi di soññi rakkam yëpp kenn ku ne nga soññi ñi nga seq ñu aju ci yow wala ko Sëñ Abdou Lahad ba lépp loo war a def rek nga di jigéen gi tàmbale ko soxna may moom Cheikh Blaat di ko soññi bëgg mu soññi la njaboot Cheikh Blaat bu gépp yëg ko ci am ci kenn bañ kenn bañ ne damay barkeelu nag ndax jëf ju jëm ci kër Sëñ Tuubaa rawatina ci juwaay Sëñ Tuubaa ji ak li war jumaa ji lu jëm Sëñ Muntaxa war cee ko ci kooku moom kenn waru caa barkeelu dañ caa woy jëf loo mën ak loo mënul loolu moom ni nga koy tàmbali suñu bopp ak képp ku aju ci ñun ñoo lay soññ ci loolu ñoom ñeen soññi ci wàllu googu nañ ko defee na ndax ndigal la ndigal moom bu xasee am amul xaj ak seen ñëpp dañu war képp koo xam daal aju ko ci daal réew mi ak bitim réew ak noo ci mën a ajoo ak foo ko ci mën a ajoo mu di mu di mu di mu di taalibe mu di seex muy leneen lépp wax ji ñu ngi ci biir loolu ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp nag waaw di ñaan nag ci kàttan sëriñ bi nga xam ne moo tax ñuy jëf-jëf ji muy sëriñ Tuubaa te jaarale ko ci kër sëñ Abdou mu def la ci ak ndam loo xam ne lu kawe njot doon xéwal yi gën yokku ba kenn ku la nga yéenee def nga def ko na nga ko bëgg a defee waaw te bañ benn bañ ci am ba sëriñ bi mi nga xam ne moo ko sant am te mbégte sëñ Abdou Lahad bég ci sëñ sëriñ bi ñu ko jëmee bég ci sëñ Tuubaa bég ci waaw loolu la salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa